à 15 heures Zampar nekk zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile euh, monsieur le ministre ñu war ko inauguré tey euh, fële ca ñaajo euh, déjà Zampar lan moo ko sabab waaw président de la République Macky Sall ci nisëram bu yaatu moo xool nekk dafa am ñaari yëf yoo xam ne dafa gàllankoor benn bi moom mooy xar kanamu dëkk bi dëkk yu mel ni Dakar ab atelier yi nga xamante ne fu ne ñu ne fa day fay yàq xar kanamu dëkk bi ci programme bi ñuy wax zéro déchet zéro bidonville moo am programme bu mag boo xam ne dañu ne nan la ñuy def ba loolu dootul am. Mm-hmm. ñaareel bi moom mooy nan la ñuy def ba ñii nga xam ne dañ leen jëlee foofu ci mbedd mi ñu wutal leen ay bérébu liggéeyukaay yu méngoo ak jamono te bérébu liggéeyukaay yu méngoo ak jamono moom mooy atelier yi nga xamante ne moom la ñuy def muy luy xam ne guléet la su ñu nee guléet moom mooy mësul am depuis indépendance c'est la première fois ñu jël cinquante hectares jagle ko artisan yi ci benn projet mooy lu am solo lu dina tam may foofu su ñu amee euh, bërëb yooyu ñu am tam ay équipement maanaam jumtukaay yu xarala yu méngoo ak jamono su loolu weesu weesoo dina may tamit nu ñu leen di jàppalee ci formation mooy tàggat ak ci formalisation mu ñu mën am seen bind mu am seen këyit donc euh, projet bu mag la bu yaatu la boo xamante ne incha allah dañuy ñaan mu dem ba matal. Mm-hmm. su matalee tamit ñu yaatal ko ba mu mën a dem ci yeneen yi dëkk yi nekk ci biir Sénégal. donc ça veut dire les jours à venir euh, yenn euh, place mécanicien yu bëri ñu gis ci dëkk bi ñoom ñëpp dañ leen di jël yóbbu leen foofu noonu. waaw loolu moom mooy yéene président de la république moom mooy ñu teg benn teg fay ay liggéeyukaay ku nekk nekk ci mbedd mi nga am foo xam ne di nga fa mën liggéey. Hmm. suturlu ndax loolu dafa ci am solo. ndaxte artisan yi bokk nañu ci ñi nga xamante ne dëkk bi. Hmm. ñi ci ëpp solo ci lañ bokk.